ay eh, papa ngas ka asiw ngas ka tëgg ko waaye eh, nga fi tëgg bi tournoi bi maag nara pi kese bu ci kenn bokk xamul dara maay mbaru chroniqueur yi man sax ma chroniqueur petit batteur loo xam parce que ma neex laay def parce que ma kenn nga def sa deux cent mille battle mag naay rapi fu mu ngeen tëgg battle bi su fekkee amul niveau ngeen bàyyi ah 5 4 3 2 1 tey sama kër nekk sama néeg fas ne am lu ma leen woon ay rhymes si efficace ni paracétamol conska rek booy paracétamol rhymes si muy dóor dafay dugg ci ay boîte ci ay cabaret bu ko yóbbu jàkkay Kaolack ndax wóoru limaan yi mën nañ koo cabaret ay US dollar laa yor booy fas yoruma ay naira jege fële sa ba ñu damm dem 10 ans ñëwaat di ñu sonal ne ayra ni nga foog nara pii li ngay def dafa yàgg ne jamono Youssou Ndour ak xippi xep xippi ma lekk la boy ci kat baar doo dara amuloo maana sa flow dafa yàgg ni farlo jëng jamonoy maana maa ngi sol cap bu gris bordeaux ñëpp xam nañ ne Balla Gaye mooy suma mbër booy du gris bordeaux luñ ci bind joor fu ñu bëree dama lay mbot moo xam ci kekk wala joor baat yi booy dafa grave fi ma koy ajee ni gis dina jàgg yàgg doo xam fi nga koy ajee ndax kat booy if it's A. Eh, dama aay yee you know what I'm saying samay rhymes moo graaw booy fis day grow ni Tupac ca def raw ins boo teg ma foog def lu raw la Tupac defoon jamono yi def raw ni gis dama dof maa ngi suma nekk toog sumay gale dama nekk benn naar ba booy fis nekk naaru gale di nuroog njaagoo ni gis suma la jàppee naar la dóor booy ay blessure boobu tënd la a fomp mi ma njaagoo ni gis laaj ma gars yi maay kan maay ki laal dép ak lu brique ba rappeur yi gën a siiw ni gis maa ngi ñëw sama chaîne dorey freestyle booy gars yi ñëw di ma béew ni ay wañ amoo doole booy fis joor wagn ni gis maa ngi ni mbt mi ngi kontaan fële fa mu ni gis samay son la gaay di jël boy di ko def ay tiktok duma ma ngaaka dip mais damay boy tek lu dip mak samay beut yu reuy du la saf xëy bu su la jappé na la dóor boy fils yóbbu alerte à malibu la ngay def fa yóbbu na pire japp sa ki di ko wengal ni zos entreprise bi ñu dajé may nek boss boy nga nek vigile sama rap dang koy dégg boy ci ay alla boy ba ci bir civil ni sama gayan ma ngi ni nek mo am da tuni way boy civil gaay yi may xol na mo la won dakati mu ni ni gis li nga umpale ci man booy dafa mel ni iceberg li ma nëbb moo ëpp booy li ma feeñal su ma la jàpp booy saram dina tàng ni liir bu am ay bëñ di koy waaj a feeñal niggas dama yàgg get ay son booy ni jamonoy rappaajo fu ma ne tëll booy fis coow lay bëri booy ni xoolal ay yoon bu ndappaajo am from the H double O D booy tëngéej sama xel du mos a jóge yàlla booy ndax sama koñ am na morgo am na booy jàkk li gis boo dema tiit booy fils da ngay jàkk papa ngaska na nga tëgg booy bi say fa nga jàpp booy bi lay ñu dajee dina sëf ak sa pré album xaw ma say EP ouf ni nga sa rab dafa élémentaire ni ABC ni bu leen rek booy ma dolli li ma dàq booy miskit dool yi maa ngi di toog booy suma nekk coiffeuse bu marron rab bi dama ko yàgg tifa booy ni jamonoy nekk marron ni nga takk samay montre Rolex la jàppee naa la dóor booy ngay yuuxu ne gaan bu jàpp gel di ko fop te solul latex ay wu sëb kaka ngaska asiw ay boppam ngaska asiw yow ma la coono meen ma la coono meen the best chroniqueur alive mu ni ngay defee di tëy xamoo dara boppam ngaska tëgg ko waaye tëgg ko tëgg ko booy tëgg ni bekkaay ak ban tamba ay wu sëb ba niggas na rapi laay jàpp kil ko booy suli ko fële ca tamba